di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa di kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla defal ko fan wu gudd ak wér te yéene jim am ci liggéeyal lislaam am ko ci liggéeyal yoon wi am ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa yàlla bàyyi ko fi ba mu eggale ko di ci teg suñu kilifa di kilifa ak barab bi di kilifa ak kër gi sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Salihu xam ne li ñuy def lépp moom lañ koy defal nee na moom ñu ngi koy nuyu di ko siyaare di ko ñaanal li mu ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàgg feeg wér eggale liggéey bi di ndokkeel nag mboolem juli yi rawatina mbokki taalibe ci bis bii di bisub di bisub ayit ci ayit gi nee na mi ngi si nuyu ñëpp di ci ndokkeel ñëpp. waaw ah, nee na bis bi ni ko ni ko jàngee ci xutba bi ni ko sëriñ bi waxee ci bis bi. yow bis bi bisu feet la. ci bépp jullit boo xamante ni ku gëm yàlla la ko taxee. delloo waxaat ci ne. bis bii. bisub lekk la ak naan ak goreel jaam ndax feet la. kon nag mi ngi ciy ndokkeel jullit ñëpp ci feet googu feet gu rëy gii nga xam ne moom la suñu borom defal. tey bi delluwaat ci li nga xam ne moom leen jogee nag ba yegg si ci bis bi. muy koor gi. woor nag yàllaa na ko wàcceel nun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu ma ko na mu ko waxee ca aaya ba na mu ko waxee ca aaya ba ne yéen ñi nga xam ni da ngeen a gëm war waral nañ ci yéen koor comme niñ ko warale ci ne leen ñi leen jiitu woon ndax lee bokk ngeen ragal yàlla nga xam ni koor kon day jur ragal yàlla Ah, nga xam ne kon solo lépp rek mooy loolu mooy mooy résultat bi bëgg nekk nit ñi ragal yàlla. ragal yàlla nag mooy nekk ci jëfe ndigal yi bàyyi tere yi. ragal yàlla nag mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi rek. waaw imtisaalul awaamir wa tinaabu nawaahi mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi. loolu rek mooy ragal yàlla. ca jëkk moo nekkoon mission yonent yi jiitu woon yonent yëpp it. loolu it moo doon mission yonent yi fi jiitu woon yëpp it ñoom ñoom ñëpp loolu dong la ñu andi woon. dénk nañ ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ak yéen dénk nañ leen ngeen ragal yàlla. ba yàlla yónnee sunu maam aadama ak yonent bi yónni ba mu egsi sayyidina Muhammad seen mission yëpp mooy ji ci nit ñi taqwa ragal yàlla rek. kon nag ginnaaw noo ngi jóge noo ngi jóge jóge ci koor. góorgóorlu nañ suñ eh, kem kàttan ba ni ko yàlla diglee def nañ ci li nu man lépp. noo ngi ñaan sunu borom mu nangul nu ko. te def ñu yàgg koo teewee. Ah. ñu góorgóorlu ba ni nekk woon te nu góorgóorlu ba ni nekk woon ci koor gi ci moytandiku. ñu fexe ba loolu li des ci mel na weeru koor bi fexe ba wéeru ko ci weer yi yëpp mu bañ a doon weeru koor rek képp waaye ni ñu la woon ci biir weer wi ci def ndigal yeek ak bàyyi yi ak di moytandiku yu bari nu continuer noonu bañ koo yemale ci weeru koor yi ba weer wi dellusiwaat. ndax loolu mooy résultat bi looloo tax muy am njëriñ waaw ginnaaw la àllakum tattaquuna la kon boo ca génnee rek daal di génn kon day mel ni koor gi jurul la dara waaw ñoo ngi ñaan rek sunu borom nangul ni sunu koor bàyyi nu fi ban defaat ko yeneen ati at yu bari te mu dimbali nu ci ba ñu mun a digal nu sax ci lim nu tere nu di ko bàyyi. te loolu mu jàppandal ko ci noonu ban man ko lool. du doon loo xam ne dañ ciy doon dañ ciy takalluf benn coono waaye mu jàppandalal nu ko ba nga xam ne day yomb ci noonu ndax ku ko yombalal rek mu yomb la. Hmm. waaw bis bi ñu ci daan fàttali mooy sakaatul fitri. waaw bis bi ñu ci daan fàttali mooy sakaatul fitri. Mm-hmm. Ah, sadaqa la wax naa dañoo jotee naa leen ko biig ko fàttali daa war a jiitu julli muy muuri koor yi lay wax dafa war a jiitu julli gi waaye bu xasee julli ba noppi sadaqatum mina sadaqaat ab sarax la rek waaye muuri koor daa war jiitu julli waaw loolu ñu bàyyi ko xel waaw waaw xam naa dara jëru ci na xanaa ñaanal la rek xanaa ñaanal la sunu borom may la fan wu gudd ak ba mission bii ñu la teg nga man koo attan ko te mu woyof tooy yi ci yow ci kattanuk borom bi ñaanal kilifa kër gi Serigne Cheikh ñaanal kilifa ak yoon wi Serigne Mountakha yéen ñëpp suñu borom bàyyi leen fi te bàyyi nu fi noonu ci seen leen jàppale eh, ci ci ci liggéey bi ndax kat ab Serigne moom bu dee bu dee moom dong kat du man dara xanaa diggam ak yàlla waaye diggante mi du waaye donge yi nag ñoo mën a nekk seen gannaaw yi yàlla neen li li yàlla di may sëriñ si bañ mën a wéy yàlla na ko may donge yi muy gudd fan ak wér ak wërsëg wu yaatu bañ man leen a jàppale te may nu pas-pasu jàppale leen ci barke sëñ Tuubaa ah, loolu rek la ñuy dara amul dara lu ñu tegaat sa wax ji moom matale na ndax naa nuyu kilifa yi fi nekk rek sëñ Ousmane Mbacke mi ak sëñ Abdoulaye Mbacke moom sëñ Mbodj Fatick yi ak kilifa yi ah, lil Mustafa fi jamil ali qultu salaam الماء ينقل خمها من حق من قرب مني ومن بعد رديت المالك المغني يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يد سكرت قردا لئيما لا يودعني إلى بزارة على زمن زيد أنا لي الله عن مكر وعن حسد هدى ما نقمات النفس والقول للقادة النفس دوحا والحياة رجال هدى ما عندنا بالله والأول العالمين ببذل من ليس يحرم الكون فدون العرش والسمد ملأت غير